tey nga def match boo xamante ne bu méttee métti seen diggante li nga xamante ne mooy euh, tey ban yëg nga ci am. non ite juste kontaan rek mbéttee rek waaw parce que jàmbaar moom yàgg nañu joué ensemble yàgg nañu joué yàgg nañu ñu def 1-1 ñu match ñu 0-0 kon ren suñu ñëw suñu ñëwee final bi foog ñu def lépp pour gagné ko parce que dañuy soxla coupe bi dañuy soxla trophée vraiment dañu ko soxla bu baax. tey góorgóorlu ak blessure bu métti tey loolu tey nu la def. non defuma dara waaw. xam nga rek nit ki moom ñun moom naka jëkk ñun Casamance lañ la Casamance lañ dëkk lu métti rek lañ ñeme waaw dañuy muñ rek dina baax. jox la om de masse. waaw feete la si man bu baax bi mooy troisième fois waaw bi mooy troisième fois ma koy jël waaw merci. jërëjëf. merci jërëjëf ah, kooku mooy